ay eh, waay ñëwati ci vie vie réelle bi waay <laughs> vie réelle vie baa ngi nii naan kii la yaay Seck ay <laughs> eh, waay ñëwati ci vie réelle bi cause <laughs> quatre lettres la Qatar am na ñaari A ak benn R Dakar am na ñaari A ak benn R Karim ngi foofu. Karim mel na Karim na mu ngi Qatar. Uh-huh. moo njëkk qualifié suñu jumukaay Karim lañ koy jox fi Karim dëkk ak su Sénégal footballé ñoo jàkkaarloo. kii de mi ngi analysé déjà nii Qatar nañu war a toogee. waaw